barki démb vendredi si ngoon li fi xew mooy agent policier yi ñoo fi ñëw doon def patrouille pour les magasin fermés non ferme ci biir loolu ñoom peut-être jël nañu seen bët am ku seen ci kaw ni am na ku leen di filmer ci ñun suñu kër bon ñoom ñaari gars yi di ñëw nag pour défoncer la porte pour di yéeg ci biir kër gi bon justement ci laa leen téye ñeen ñan ñu ne moom dafa am ku leen di filmer may leen kan la ñu ne ma ci may leen wan leen ñu seen carte parce que ay civil ñu ne ma non amuñu carte dañu dugg ci biir ci la booy bi magu kii riposte ñoom du ngeen dugg ci biir kër gi sans carte comprendre nga noonu la demee léegi nag ci lañ jàpp booy bi magu kii rakku kii ci lañ ko jàpp ni kon moom day dem ci porte ci bunt kër gi ñu ne moom comme mënuñoo dugg ci kër gi ñoom booy bi day dem bon léegi ñu jàppante ak ñoom mais man aussi maa leen di laaj laan leen fan ngeen di yóbbu booy bi parce que il faut ngeen identifier wu mais yéen da ngeen nekk en civil en civil ngeen ñëwee oto bi aussi peut bu fekkee ne auto police la amul ñu insigne police mais da ngeen xam suñu doom fan lañ koy yóbbu fan la ak fu mu doon ñu xam bon ñun ma booy day dem après yéen da ngeen ko xam da xam fu booy jëm ma jàppante ak ñoom foofu ñu téye ci tubéy ma téye ci ñu jàppante ba ba finalement ma léegi il faut ngeen libérer booy yi balaa brouillard di am nañ leen bàyyi ñu dem après ci lañ dem kii magu booy bi la magu booy bi la moom moo àndoon ak booy bi dem mais léegi d'ailleurs que liñ ñu jotee expliqué démb à la police. biñ génnee ñu libéré leen moom d'ailleurs ci li mu expliqué mooy nopp bi dafa fanaane si deret bon après ci lañ gis nopp bi xaw a newi parce que waa ji dañ leen évacué woon ci benn chambre bu ndaw di leen torturer foofu après ci laa ko ni mbagg mi mënoo mbagg yi mënul yëngutu après ginnaaw gi ci lañ xool ginnaaw gi am ay ay ay rëdd yu xaw xaw de waar bon loolu dañ koy déplorer dañ koy déplorer parce que xamuñu lan la yóbbu nañ leen avant mooy dugg ci gri bi ñu yóbbu ko ci benn chambre bu ndaw di leen torturer foofu beneen bi menace am na parce que nee nañ ko xam nañ fi nga dëkk te daañ fa ñëwaat léegi nag loolu laa bëggoon déplorer bon au niveau du commissariat man aussi sama jëm bopp bon je travaille avec l'administration du Sénégal mais man sama man dégg naa le commissaire barki démb ci boppam mu naan dóor la wuñ kenn man loolu dégg naa ko léegi loolu à ce jour la affaire bi am ñu bëggoon xam léegi nag booy bi a en fracture que loolu la ñu wax docteur yee ko wax. dafa waaw loolu la wax. certificat médical waaw certificat médical baa ngi nii am nañ ko. léegi nag dañuy déplorer bu fekkente ne yoon am na ñu xam bu dee yoon amul aussi ñu xam. mais lan dem ci yoon parce que boobu dafa blessé depuis démb su guddi ba tey mënul mënul mënul mënul mënul nelaw aussi ñu xam nag exactement qu'est-ce qui se passe dedans. dañuy dañuy porter plainte contre gars yi ko def. nopp bi ba léegi mu xolli. nopp bi dafa am waaw nopp bi dafa newi pour le moment xëy na deret bi wàcc na mais dafa newi. nee na rek la. ñoom dañ fay ñëwoon am na benn magasin bu nekk côté bii magasin boobu ñoom ñoom lañ doon dem di tëj léegi euh, si noonu maa ngi am sama benn rakk bu ma doon waxanteel boobu mi ngi ñu fekk si kaw ba mu yàgg si si ni may waxanteeg moom ba mu yàgg téléphone am di sonné léegi mu ne nañ ko may tuuti na na na na naa xaar tuuti mu wuyu mu mu wuyu ki koy woo si biir wuyu googu nag si lañ taxawee si balcon bi biñ taxawee si balcon bi léegi. gars yi ñoo xam te ne ñoo nekk si oto yooyu jékki-jékki rek am ku génn bi mu génnee nag saaga nday na eh nangam taana ndayam wàccee sa téléphone. bi mu ko waxee bi mu ko waxee loolu léegi si la wàccee téléphone am léegi am ñoo xamante ne dañoo bëgg a daw am na beneen étage bu nekk fi suñ côté nii mu bëgg daw dugg foofu. keneen ki ne ko du foofu fii la ñu bëgg a ñëw dugg fii nag léegi si la ko sama rakk bi rakk bu góor bi ñëwee ne leen du ngeen dugg fii c'est parce que wanu leen ñu benn résultat bu ngeen fi war a mën a duggee. ñu ne ko léegi ñu taxaw ne ko ana sa ana seen carte ñu ne ko ñoom joxuñu benn firnde wane wane wuñ carte nangu benn mais bëgg riposte bëgg dugg far force léegi nag si laa ñëwee taxaw ne leen wax na dëgg fii amu leen benn droit joxuñu leen benn droit bu ngeen fiy duggee wala ñë wala ngeen am benn euh, lii boo xam te ne war ngeen a mën a tax ngeen duggee ko fi. léegi nag si sur le champ noonu laa gis kenn si ñoom ñi nga xam te ne ñoom ñoo ànd si turu boobu ñu daw am am ko daw dugg ci kanamu oto jëm ci kanamu bi. ma xamante ne dana am lu muy am na lu muy waajal ci laa tournée nag mën tamit ma profité dem eh, kar ko bi ma bi ma kare bi ma firee loxo bi ci la paaka bi waddee fi ma sëggee ba koy waaja a fort rek ci la beneen waay si ñoom jàpp sama loxo weñ ko sama ginnaaw léegi nag biñ léegi biñ waxee ñu ne nag léegi dañ yóbbu ñu ne leen garaawul nañ leen nañ leen dem parce que ñu demee nag ba bi ñu demee nag ba si yoon bi ñu naan ñii jëru nga leen di wax dara jëru nga leen def dara dañ leen di bàyyi bañ àgg léegi danañ xam ndax fii kër gi seen kër la ba wala du seen kër ba ñu tere ku fi dugg ak ku fi dul dugg si noonu si lañ demee nag ba àgg ñu jël ñu am si benn roq bu ñu dugal foofu bi ñu roq bi ñu dugal nag si lañ ñu jàppee dóor ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu de sept personnes six personnes ak benn euh, personne bu ñu fa fekkaat ñu jàpp ñu dóor ñu dóor ñu dóor ñu bañ sonn ñu détourné waat ñëwaat bi ñëwee ñu indi ñu ci euh, kiiwu contrôle bi ci contrôle si contrôle bi foofu si police ci biir janatu ci lañ taxawee léegi niñ toogee noonu ba mu yàgg am na si kenn si ñoom ci police yi ñu monté woon bi am na si ko am na si koo xamante ni mi ngi dem ba mu yàgg xool kii boo xoolee sax xam ne daa màndi te yàlla xam na ne fii ku fi dëkk di tux cigarette sax dafay mës a am waxuma la nag di màndi loolu rek tooñaange la. ñu tourné waat ñëwaat demaat si waa ji ne ko euh, ne ko kii sunu élément la ñaari ñi suñu élément la ñoo leen fi indi woon dañ leen soxlawaat léegi si biir soxlawaat googu si la ñu indiwaatee dóoraat ñu si biir dóoraat ñu dóoraat ñu dóoraat ñu ba seen xol seetaat ñu door ñu door ñëwaat kii te ba en même temps benn ñu ngi yore seen ñu ngi yore seen benn cour bu gàtt ñu ngi yore seen benn yat mooy yat yooyu noonu nga xam te day am bopp ak buum boo xamante ni dañ koo takk ñetti takk fasal ko bopp bi c'est parce que buum bi sax man moom lañ door sama nopp bi bari sama nopp bi du bari sama nopp bi di naa ci génnee deret moo waral kii sama nopp bi nii yu des yëpp ñu jàpp ñu di ñu dóor comme koo xamante ne dañoo jàpp jaam wala dañoo jàpp koo xam ne dafa def dara wala dara c'est parce que benn ñoom dañoo ñëw bëgg a dugg si kër gi dugg si kër te dugg si kër nag daa am daa am lii ñoom même bu ñu leen bàyyee ñu dugg si kër gi ñun bu neexee ñu toppaat leen ne leen suñ kër nangam nangam manqué na xamuñ leen xamaaluñ leen ñu ñëw nag bëgg a dugg suñ kër loolu tamit ban lii la amul fenn sama kër maam la man Djibril Bey laa tudd je suis un enseignant je suis en service à Misra dans l'IEF de Mbacké fii sama kër maam la kii sama jarbaat la am na loo xam ne nii dañ koy déplorer di ko ñaawlu di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yem li tax mooy lii dafa doon yoo xam ne nii lu fi war a jeex la ndax dafa doon loo xam ne nii ay ay ay pratique yu récurrente la dafa bari loo xam ne dañ koy nemmiku ci diiwaanu tuubaa ci diggante police ak population Touba bi léegi nag liñ bëgg mooy lii na dakk bis ni tey lu ko mooy ñun de li nga xam ne nii moom lañ fas yéenee def parce que day français tubaab day wax ne des stratégies ne se dévoilent pas elles se déroulent ñun nag liñ fas yéenee def duñ ko wax mais gis naa ko ci Cheikhul Khadim ne maanaam lii bu dakkut ëllëg ci si biir lu mën di xew na kilifa. yi nga xam ne ni ñoo nekk ci Touba xam ne maanaam seeni taalibe moom la teg ay nattu di leen teg ay ñaawteef yoo xam ne mënuñ koo faj mbir mi nag bu demee ba sës nit ñi danañ ko fajal seen bopp te dinaa leen xamal ne lii am na loo xam ne nii bu fekkoon ne ci ab koñ la boo moytu danañ fa fekk des morts dom maa ngi jéggulu